الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
اللهم رب هذه الدعوة تقوم والصلاة على محمد
الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومحو الظلمة وكسف الغم عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إخوة الإيمان لا شك أن القرآن قد اشتمل على جميع طرق الهداية للعالمين فمن شاء اهتدى ومن شاء كان من الذين في طغيانهم يعمهون والقرآن يعتني بهداية الإنسان منذ طفولته بل من قبل وجوده ولذلك يحث الآباء على الدعاء بالولد الصالح ويأمرهم بالاقتداء بالأنبياء والصالحين fi tarbiyati awlaadihim mbokk yi ci yàlla tabaraka wa taala ginnaaw bu nu tàmbalee ci sunu tur boroom noo ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko mbokk yi ba tey noo ngi ci sunu tomb tarbiyatul awlaad kama yaraaha alquran yar xale yi nan la ko alquran gisee tey mu nekk ñetteelu xutba buy jàngal jullit yi ak di leen jubanti di leen jox ay orientation pour ñu war a bàyyi xel njaboot gi leen yàlla jox mu ne sikk nekkul ci ne alquranul karim dafa matale mbooleem yoon yi nga xam ne doomu aadama bu ci jaaree jub mbokk yi alquranul karim matal na yoon yooyu bal sax dafa tëral yoon yoo xam ne wax na ne ku ci jaar da nga jub moo tax mu ne ñi nga xam ne jaaruñ ci kenn bu mu seenu ci ñoom jub ndax liy jubalaate ci yàlla lay bàyyee ko te yàlla moo indi alquranul karim waxu yàlla tabaraka wa taala la alquranul karim dafa toppatoo dafa yittewoo depuis bu yàgg doomu aadama depuis juddoogul depuis mu nekk xale alquran daf ko yittewoo avant muy juddu looloo tax muy soññ bàyyi yi bu ñu yaakaar ne yar ay dóor la wala déedéet yar mbokk yi ñaanal sa doom sax da cee bokk loo moo tax alquran soññ ñu pour ñu roy yonent yi ak ñu baax ñi ca nañ doon yaree seen doom alquran nettali ñu lenn ci ay histoire yonent ak nit ñu baax ba ñu bëggee yar seeni doom ak seeni njaboot ku mel ne Ibrahim yàlla nettali nañu histoire am fan la jaar ak ay doomam Ismaïl yàlla nettali nañu fan la jaar ak njabootam ak ay doomam Yaqub Luqman alayhi salaam wa gayrihim ku mel ne Luqman ku mel ne yaqub ak ñeneen ñu dul ñoom sunu boroom jalla jalaaluhu wa azza kamaalu nettali nañu ci alquran ñooñu ba ñu bëggee yar seeni doom yan yoon lañ jaaroon yan pexe lañ tëraloon amma ibrahim alayhi salaam faqad daa an yarzuqahu min alsalihin ibrahima ba mu mëbetee am doom programme bi mu njëkk a tëral mooy balaa muy am doom mu ñaan yàlla borom bi nettali ñu ko ci suratu safat aya téeméer ibrahima tàllal na ay loxoom naan rabbi habli min as-salihin yàlla maa ngi lay ñaan nga may ma doom ju baax gis nga ndeke yow bul ñaan yàlla doom kese kese tey programme bi ci sunu dund mooy doom doom doom léegi nag bu la yàlla mayee doom fekk baaxul rek nga indil sa bopp problème moom ci boppam muy problème nga indil société bi problème ndax dëkk bi ngeen di gis nii mu mel nii cambrayage yi ngeen di dégg ay nit di dajji banque ay nit ñoo koy def ñooñu ay doom lañ ak rey yi ngeen di gis agressé yi ngeen di gis sàcc yi ngeen di gis ak yeneen yi ci aju ñu koy def lan lañ ay doom lañ dañ leen a jur moo tax yonent yi alayhimu salaam ñoom balaa ñuy am doom dañuy ñaan yàlla ibrahima balaa muy am doom dafa ñaan yàlla ne ko may ma ci ñu baax ñi rabbi habli min as-salihin nang ma may ci doom yu baax yi ngay maye kon ndeke na bokk ci yar gi ngay yar sa doom léeg-léeg ngay sujjóot di ko ñaanal yàlla yal na ko yàlla jubanti léeg-léeg nga tàllal yàlla loxo ne ko yàlla may ma doom ju baax mbokki julit yi wa baada ma stajaaba allahu lahu wa razaqahu ismail wa ishaq alayhi salaam qaama bi tarbiyatihima bi ahsani asalib moom ibrahima alayhi salaam ba ko yàlla wërsëgalee mu am doom mu am ay doom jóg na ci programme boo xam ne day tax doom yi baax jóg na ci jaarale leen ñoom doom yooyu ismail ak ishaq ginnaaw ba mu ñaanee yàlla yàlla na ko yàlla may jóg na ci jaarale leen yoon woo xam ne ba ca doom yi baaxee gis ngeen ismail la ko ca fekk keroog ba mu géntee moom ibrahima ne yàlla ne ko reyal sa doom mu woo doom ji ci biir néeg ne ko damaa gis ci sama gént yàlla ne naa la rey xam ngeen ne géntu yonent dëgg la doom jooju mbokk yi buñ ko yarul woon suñu defarul woon aqida bi pas-pas bi defar ngëm yàlla gi doom ju sa bàyyi woo yor jaasi wala mu yor paaka ne la dama laa war a rey loolu nañ ko natt tey ci jamono tey bii waaye ba ñu nekkee ba mu nekkee ku ñu yar nekk ku ñu tàggat nekk ku ñu jaarale ci programme bi yàlla bëgg lan la tontu moom doom ji te keroog ba mu ko koy wax yàlla moo nu ko nettali fa lamma balaga maahu saya fa doom di neexe baayam wala ndeyam doom fi muy neexe dëgg mooy boo amul dépasse mu ne la papa lan la nga ne ko tey day dëkk bi neexul mu ne la am doom fi muy neexe mooy papa génnal kër gi ñu daaneel ko yëkkati ko doom fu muy neexe mooy bàyyil mbaam bi jëlal kat kat bi foofu la doom di neexe baayam ba ismaila tollee foofu nga xam ne mu ngi ànd ak moom ci tool yi di ko dimbali lu mu war a def sax mu ne ko bàyyi ko ma def ko la ko ibrahima ne ya bunayya inni ara fi lmanami anni azbahuka fanzur maza tara man de gént naa ne yàlla jox ma ndigal dama la war a rey lan la tont ya abatif al ma tumar satajiduni insha allah min alsabirin bàyyi defal li la yàlla sant bu soobee sunu boroom xaw ma lan la de waaye man di nga ma fekk ma bokk ci ñi muñ kon kooku jàngal nañ ko muñ avant mbir mi di xew ci kawam jàngal nañ ko doomu aadama bu mettit ñëwee da nga war a muñ gis nga ndeke kon yar xale bi ñuy yar dañ ko war a jël di ko jàngal di waxtaan ak moom di ko orienté ba ëllëg ak si biir ni nu bëgg mu nekk mu nekk ko mbokk yi waaye yamul ci moom kese moom ismail alayhi salaam bi ko baayam yaree mu am ay njaboot moom it sunu borom nettali ko wa amma qissa qassa allahu alayna min tarbiyati ismail alayhi salaam li ahlihi wa awlaadi moom ci boppam biñ ko yaree ba mu baax moom xale boobu ba mu màgg ba takk soxna lan ngeen dégg yàlla nettali ñu ci suratu maryam aya 55 yàlla mu ne wa kaana ya'muru ahlahu bisalaati wa zakaati moom doom bi ba mu demee ba am soxna am doom fa ko baayam jaarale woon foofu la jaarale waat njabootam ndax dafa doon jàngal ay doomam ñuy julli wa kaana ya'muru ahlahu bisalaa ñun fii tey bu julli jotee da ngay gis baay ji kese mooy génn dem julli ji soxna si di nelaw waa kër gi nelaw ñaata ci ñun ay nit ñoo fi dem jàkk di yóbbaale seen doom néew na nasaraan yi jouru dimanche da ngay gis ñu boob ñu boot fab yenu gàddu lii ni sax dañ leen di yóbbaale église ñun ñaata ci ñun fii ñooy julli ji bàyyi seeni doom ñuy seetaan marche ñuy seetaan télé di seetaan théâtre di seetaan di seetaan ñaata ci ñun ñooy julli bàyyi seeni soxna toog kenn ci ñun du mer parce que waa këram julli wuñu lan la yàlla wax ci ismail ba ko ba ko baayam yaree wa kaana yaamuru ahlahu bisala wa zaka mu ne fal amru bisala wa zaka digal gim leen digal julli ak joxe azaka muhimmun jiddan fi tarbiya lu am importance la ci yar parce que nit soo ko bëggee yar mu nekk ab jullit da ngay fexe ba muy julli waxtu yi te kenn du ko digal waaye bala ngay julli ñu jël yat fexeel ba xale bi am boroom boo xam ne xam na ne boroomam da koy soxla ci waxtu yi lu mu mun a def daf koy bàyyi benn xale bu jigéen li sa limaamu laay la doon jàngee ca muuraay yu njëkk ya dafa ñëw jour examen moom kenn ci classe bi mooy muuru te technique la dañoo war a dem ci machine yi def pratique mu ñëw ab tubaab moo yoroon machine yi keroog tubaab bi ne ko non il faut nga dindi sa muraayu gi mu ne ko pour ba pour bag pour bag rek jamais du ma ko def ci àdduna ma am yàlla moo ma gënal bag bii ma parce que kooku jàngal nañ ko yàlla su soxlaa keneen waruñu def liggéeyam jàngal nañ ko àdduna bi li muy rëy rëy rëy rëy rëy rëy rëy ngëm yàlla moo ëpp doole keneen ki ndeysaan moom it dafa def examen bag amul bi muy def bag bi ak bi muy muuru juróomi fan la dafa jàng si daara ji ñu waxtaan ak moom mu muuru mu dem def examen amul mu ñëw premier jour laajuñu ko troisième jour ma ne ko waaw sa examen bi mu ne aw ma bag mais am naa iman alhamdulillah aw ma bag mais am naa iman alhamdulillah parce que gëm naa yàlla sama ngëm yàlla mu yéeg na waan loolu mooy islam nga yëg raxas ci ki nga yar àdduna ba mu set wécc nga dugal ci moom yàlla ba mu yëg ne su ñàkkee àdduna am yàlla pertul dara mais xoolal tey ñun luñ ñu def su ngeen amee yàlla amuleen àdduna perte ngeen ñun loolu lañ ñu yare moo tax nit ñi loo gis àdduna rek àdduna koo fi gis muy daw àdduna tax muy muy kër kër yi su ci yàlla bokkul rek su ci yàlla génne waa ji daal di toog tëdd ji nelam yàlla àdduna am yàlla amu ci programme àdduna kese kese mbokk yi keneen ci yonent yi alayhimu salaam mu yaqub keroog mu mu nekk ci sukuraatul mawt di waaj a faatu sunu borom di ni nettali moom yaqub mu ngi ci sukuraat doom yi wër ko mu leen di laaj ay question ndax laaj yi mu leen laaj alquran moo nu nettali ñoom ñëpp biñ toogee wër ko mu ngi ci sukuraat mu ne leen maa taabuduuna min baadi waaw doom lan ngeen di jaamu sama ginnaaw mbaa du ma fi jógee ngeen nekk ay rappeur mbaa du ma fi jógee ngeen nekk ay simbkat ay gaynde ki mbër ak i càkkaaba ak i joor ak i kankorang maa taabuduuna min baadi lan ngeen di jaamu sama ginnaaw moo fi jógee mbaa du ngeen samp ay guy mbaa du ngeen takk ay lam mbaa du ngeen takki ndombo mbaa du ngeen xëy suba di sotti ndox ci oto yeeg garage yeeg buntu kër yi maa taabuduna min baadi lan ngeen di jaamu mu ngi ci sukuraat fa isa bil abna mbokk yi yaquba laajul doom yi al amwal kayfa tajmaunaha maa ngi ni di waaj a dee tey bëri na baay boo xam ne buy dee danaan doom yi maa ngi ni di waaj a dee waaye alal ji nangam la compte sàngam nangama ci nekk compte sàngam compte compte compte loolu yëpp bu ngeen ko dajalee temps la nii la nii la nii la nii la déedéet yaquba waxul wool de al amwal kayfa tajmaunaha la al huqul kayfa tazraunaha tool yi nu ngeen koy bayee al qusuur kayfa tabnunaha nu ngeen di yëkkatee sato yi mu dem yaquba waxul yooyu yëpp lan la laaj ma taabuduna min baadi lan ngeen di jaamu sama ginnaaw doom yi daal di tontu tontu boo xam ne dafa kontaan te mu ngi ci sukuraat qaalu naabudu ilahak wa ilaha abaik ibrahima wa ismaila wa ishaq ilahan wahidan wa nahnu lahu muslimun bàyyi danañ dajeeg yow ëllëg yowm alqiyama di jaamu yàlla ji nga doon jaamu gis nga moo tax li nga nekk fexeel sa doom nekk li nga gëm fexeel sa doom gëm ko footballeur su doomam commencé am juróom-ñaari at fan la koy yóbbu école football mbër su doomam commencé am jaar juróom-ñaari at fan la koy yóbbu caareen ba kenn ku nekk la nga nekk yar ci sa doom mbokk yi ñun nag li gën a rëy lu nu nekk mooy ay jullit lañu nanu fexe sunuy doom gëm lislaam nanu fexe sunuy doom bëgg yàlla nanu fexe sunuy doom bëgg sayduna muhammad alayhi salaatu wasalaam benn waay ci fin wu décembre ni ñuy naxe nit ñi naan leen Père Noël day ñëw di leen indil ay cadeau moom dafa yar ay doomam yu jigéen ba biñ demee di jàngi ki leen doon jàngal laaj leen ne leen ndax démb gis ngeen Père Noël xale yu ndaw 4 ans 5 ans 6 ans ndax démb gis ngeen Père Noël mu ne ko Père Noël gisuñu ko de mu ne gis leen ko mu wàcc ci kaw asamaan si di indi ay cadeau xale bu ndaw bi ne ko sunu papa nee na asamaan Père Noël dëkk fa buur bu tudd Allah moo fa nekk waaw jàngalekat bu jigéen la mu leen di xoolaat di leen xulli bët xoolal ay xale yu ndaw ay xale yu tuuti gëm ne asamaan ki fa nekk Allah la tudd du Père Noël xale yooyu fu ñu dem dañuy bàyyi buur boobu xel ab julit noonu lay yare ay dooma mbokk yi nañu yëg ne mbir mi ishaqa yaquba def ay doomam doomi ne ko danañ jaamu yàlla ji nga xam ne moom nga doon jaamu ilahak sa yàlla wa ilaha abaik sa yàllaay bàyyi ñu limal ko sax baayam yooyu ñan la ibrahim ismail ishaq gis nga yemuñ ci de soo déggee loolu ñu lim dafay mel ne ci yow ay yàlla yu bëri xale yi feddaliwaat mbir mi ne ko ilahan wahid benn yàlla la du yàlla yu bëri waaw ñun nag ay yàlla yu bëri lañ yor waaw yàlla yu bëree bëri lañ yor moo tax ñu am problème ay yàlla yu façon te jag daggoon ngeen suratu yusuf a arbabun mutafarriq xayr amillah wahidul qahar mbokk yi yàlla yu tasaaroo yàlla bii di la bayloo yàlla bii di la fóotloo yàlla bee di la raxasloo yàlla bii di la yàlla bii di la foo jëm benn buur rek benn sunu borom jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu nee na yaqub xër na torop siddatal xars ala tarbiyati awlaadihi ci yar ay doomam li annahu yuusi awlaadahu fi lahzati al axir mi ngi ci sukuraat ñun tey bu ñuy sukuraat wala ñu nekk ci feebar tëdd ci lal hôpital sa njaboot wër la da ngay dénkaane ay diw diw jàppal diw diw muñalal diw yooyu la ñuy dénkaane ay kër gaa ngoog bu leen ko jaay ak te loolu moo gën a nekk catastrophe ci Sénégal borom kër di dee ne kër gi bu ko kenn jaay yow da nga bëgg a tere yàlla miraas bi mu santaane yow yaa ëpp yàlla yërmande tey am na fi kër yoo xam ne ay catastrophe nga gis benn waay boo xam ne benn pantere la am ci kër gi te am na fa fukki doom keneen ki benn néeg la am keneen ki ñetti néeg keneen ki keneen ki su ko defee kër googu dañ ko séddoo ñooñu ko donnoon dee nañ bu yàgg seeni njaboot a fa nekk léegi loolu kenn dootu ko mun a miraas fi mu nekk ni miraas ci problème yooyu la toll mooy dañuy dem ba am na ci mbir yoo xam ne kenn dootu ko mën a miraas parce que kër gi ñeenti nit dee nañ te ñëpp dañ doon donn ci ci asl bi lañ bokk cosaan ba mbokki jullit yi nanu xam ne yar lanu yàlla sant nit dañ koy yar bàyyi ma dañ koy yor nit dañ koy yar bàyyi ma dañ koy yor bàyyi ma day lekk yor la bàyyi ma day naan yor la bàyyi ma bu feebaree ci sa kër léegi xam ngeen ne hôpital am na dispensaire u xar vétérinaire yaa ngi fii xar bi day feebar ñu ñëw yóbbu ko faji ko muus mi day feebar ñu yóbbu ko faji ko rabu àll bi day feebar gaa yi fekk ko ci àll ba faj ko ba mu wér këng loolu mooy yor yar nag mooy ñu fexe nit ki ba mu communiquer ak yàlla su fekkee doomu aadama yi dañuy lekk rek di naan suñu feebaree ñu faj leen di sëy comme rabu àll yi ni mu ko defee ñooñu la yàlla di wax ulaika kal an'am bal hum adal ñooñu ñu ngi mel ne ay rab bal sax ñooñu ñoo gën a sànku rabu àll yi ndax lan rabu àll yi amuñu xel te ñoom am nañ xel kon doomu aadama dañ koy yar yar mooy ñu fexe ba doomu aadama xam lu muy ut si kaw suuf waaw gis nga nit soo xamul li la indi ci kaw suuf doo doo doo tekki doo baax mukk moo tax tey ñu am problème ñu bëree ngi dox ci mbedd yi xamuñu lan moo leen indi ci kaw suuf soo leen fekkoon ñu dox nga ne yow lu tax yàlla bind la danaan pour ma liggéey pour ma am xaalis quoi ma takk jabar ma jënd kër loolu lañ lay tont déedéet doomu aadama yàlla wax na lan mooy sababam dikk ci kaw suuf wa ma xalaqtul jinna wal insa illa li sababin wahid illa li hujjatin wahid maa hiya al ibada jaamu jaamu yàlla nag du li ñuy dégg rek suñ nee jaamu yàlla nga ni julli naa suba julli naa yow doo jaamu yàlla nga ne ah maa ngi julli ah lu ngeen bëggati loolu moo ñuy indil problème dañuy jël jaamu yàlla tënk ko ci ay julli wala koor wala joxe azaka wala dem màkka sénégalais boo dégg fii ñu ne day jaamu yàlla yii ñeent kese lay sonn waaw ñeent kese fekk al ibada mooy manhajul haya mooy système de vie la ni ngay lekkee amoo droit di lekk lu dul leen lislaam lekk loo ni ngay naanee ni ngay soloo ni ngay tabaxee sa kër fi nga war a dëkk même sa duus ni nga koy tabaxee islam mooy wax ni nga koy tabaxee même soxna si ngay takk même borom kër bi nga war a am loolu ay mbir la yoo xam ne mbokk jullit yi su fekkee bàyyiwuñ ci xel dañuy nekk ci sunu dund di làmbatu ba dee dajeeg sunu borom waaye duñu xam lan moo ñu indi kaw suuf aqulu ma tasmaun wa astaghfiru llah li wa lakum fastaghfiru innahu huwa alghafuru rahim alhamdulillahi wahda wala nabudu gayra muxlisina lahu ddin walaw kariha alkafirun ibadallah mbokk yi ci yàlla tabaraka wa taala ay ñu wax léegi sunu boroom jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu tëralal ñu programme bu ñu war a yare sunu njaboot ci alquranul karim borom bi tabaraka wa taala nettal nañ ci sura yusuf mu ne laqad kaana fi yusufa wa ixwatihi ayatun lissaailin su fekkee da ngeen a bëgg di jël ci aaya yi ay duruus ay leçon yu ngeen di dégg di ko jàng waaye du warul yem ci jàng rek da ngeen ko war a nekk programme def programme boo xam ne moom ngeen di dund yéen ak seen njaboot mu ne fa hiya ayatun wa durus wa maanin azima summa akkada allahu subhanahu wa taala ila ahamiyati hadihi durus wal maani inda wasfiha iyaha bi annaha ibra aaya yi sunu borom jalla jalaaluhu bu ñuy wax alquran di ñu ko jàngal di ñu nettali aaya yi di ñu jox xissa yi pour lan la dafa war a nekk lu ñuy jël référence dafa war a nekk lu ñuy teg suñu loxo di ci appuyé wu pour doole lii la yàlla waxoon ibrahima mu def ko kon man su ma ko defee ibrahim lii la defoon su ma ko defee ibrahima lii la waxoon su ma ko waxee fii lii la Moussa defoon lii la Nuux defoon lii la diw defoon loolu mooy njëriñu aaya yi moo tax sunu borom jalla jalaaluhu même ci fay day wax naka ni ma fayee ñii ku def lu rafet rek ma fayee la noonu inna kadhalika najzil muhsinin waxul kii kese la inna kadhalika najzil muhsinin nii ma fayee ñii ku rafetal jaar ci ñoom rek ma fay la sunu borom aaya yi utalu ko ay waxtu moo tax dafa bëgg aaya yi nekk ci ñum ibra laqad kaana fi qisasihim ibra li ulil albab ma kaana hadisan yuftara walakin tasdiqa allazi bayna yaday wa tafsila kulli shay wa hudan wa rahmatan li qawmin yuminun sunu borom nee na aaya yi tey alquran bi li tax mënuñu jëriñ mooy dañ ko def téere boo xam ne ci ñenn ñi téere bind rek bind man kataba wa allaqa man kataba aya kaza wa allaqa man shariba aya kaza man iktazala aya kaza ku sangoo aya sangam hoho ku naan aya sangam hoho ku takk aya sangam hoho kese moo tax ku jàng juzu amma rek nekk sëriñu tariyaax durwaate benn koñ commencé bind ñaata sëriñ tariyaax ñoo am Sénégal ah ñaata aaya yi loolu taxu koo jóg alquran jamb taxu koo jóg naan taxu koo jóg taxu ko jóg li ko tax a jóg mooy kitaabun anzalnaahu ilayk li tuxrija annaas min alzulumat ila nuur ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum loolu lan yàlla wax téere bi yàlla da ko wàcc pour mu génn ñi ci lëndëm yóbbu ñu ci leer léegi nag ñun téere bi dañ koo jël teg ko fee ne téere bi day tardeel nit ñi ñenn ñi def téere bi téere tariyaax ñenn ñi def téere bi téere boo xam ne pour day aaraate jënd kaamil rek teg ci sa kanamu oto wala ci sa bibliothèque nga dem kër goo xam ne maa ngi fi ak sama portable borom kër goo xam ne mënul lire qul a'udhu bi naas te sikkim bi weex na tal fii qul a'udhu bi naas lañ koy jàngal mënu ko te góor googu li ma wóor mooy am na juróom-ñaar fukki at ci seetlu yi ma ko seetlu ab jullit bu amee juróom-ñaar fukki at mënul jàng qul a'udhu bi naas kooku dundam li mu passé ci lan la ko dund te tey li ëpp ci jullit yi noonu lañ mel te téere bi la yàlla wàcce pour ñu baax yàlla bi mu bëggee baaxal nit ñi alquran la wàcce mu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam alquran bi moo lay baaxal mooy baaxal ñi nga ñi la topp mu ngoog lii baaxal nit ñëpp yàlla ci alquran la ko def ñi baax ñi ci alxuraan la leen yàlla tudd moo tax ñoom ñëpp yàlla dajale leen joxoñ sayyidina muhammad baaraam ne ko ulaika alladina hada allah ñii la yàlla baaxal fa bi hudahum iqtadi soo jaaree ci seen yëpp seen yoon rek nga baax jeex na moo tax programme bu ñu fi mën a teg école yu ñu fi mën a samp université yu ñu mën a dugal suñu doom yi feek jàngaluñ leen alxuraan du ñu baax alxuraan moo ñëw pour baaxal nit moo ñëw pour jubanti ko moo ñëw pour wax ko moom lan lay ursi ci kaw suuf ñaata nit nga gis ñu leen di laaj lan ngeen di ursi ci kaw suuf ñu mel ne ñoom Iliya Abul Mahdi lan lañ tont damaa ñëw rek juddu xaw ma fu ma jógee su ma dee xaw ma fu ma jëm déedéet indi woo sa bopp bi ngay ñëw bi nga ñëwee ci kaw suuf suuf da ngaa fekk am ku ko bind sàkk ko kooku bind suuf moo la bind indi la fi pour mu xool naka ngay dundee ci kaw suuf soo fi jógee am na fu mu lay yóbbu ginnaaw foofu am na fu mu lay dajale kon nag tont dafa am tont yoo xam ne kenn amalu ko laaj yoo xam ne kenn amalu ko tont ku dul alquranul karim musidɓe fulɓe caggal yettude allah e julde e nelaɗo men mouhammad sallllahu alayhi wa alihi wa sallam ha joni eɗen jokki yewtere men nde waɗannoɗen aljuma e tinnade e needu ɓesgu mum e alqur'anul karim allahu subhanahu wa taala ko maaki o haalni en e qur'an o holli en dalillaji e annabaɓe o holli en ibrahim o holli en Is- ishaq o holli en yaqub o holli en yusuf o holli en allah haalani indeji ɓen tan pour janggen ɗemo qur'an gasa ala allah haalat ɗum o wiya ibrahima ko ni o wanno e ɓiɓɓe makko ɓiɓɓe ɓe feewi sa nani ɗum ƴetta ɓinguel ma ndewna ɗon kono allah wima ibrahima ko ɗo o rewnuno ɓiyi ko an ƴetta ɓiye ndewna oyo bange mbiya yo wano ibrahima hen sahaji ni inniramo ibrahima kono o wayatano makko saabu laawol ngol allah rewnuno ibrahim ngol a rewnani toon ɓinguel ma ngel hay sa innirimo mouhammad te a rewnanimo e laawol ngol mouhammad rewno a dañat caɗele cukalel ngel fewta allahu subhanahu wa taala nde o yiiɗi yimɓe ɓe feewa o tagi ɓe o telline leydi o neli nelaɗo mouhammad e mabɓe o rendin e def, deftere ine wiye alquran o wi ko ndeɗo deftere fewnata gurdam meɗen ɗum tagi wiɗen neɗɗo hay goto jogata ko mo o nehete neɗɗo o nehete kono wona jogade jogade ko fof watte ɗum mumanteji ladɗe ɗi mbaalu ngu koko jogete mbeewo ba koko jogete wojere nde koko jogete so sa jogimo joni mbaalu sellani tan a nawayi hôpital baali safroye joni joni cooda coodoya leɗɗe mbaalu ngu so heyɗi a addanta ɗum ñaama so tunwi a lotan so jamma hiiri waɗamo e nder suudu makko neɗɗo noon o waɗete ɗum ha gayno o andine holko allah tag holko tagi allah tagi mo neɗɗo so andina ko holko tagi allah tagi mo neɗɗo o o fewata il faut o anda kanko holko tagi o taga holko tagi o tillina e leydi so tawi ɗum ɗo fof o wowlaka ɗum o haalnaka o andata holno wurdirta holto holko wattinta wonde no mbaalu ngu wayni no mbeewa ba wayni ko noon o wayata ñaamde yerde e wondude e joom suudu mum ko ɗum tagi o, o, o waɗata mbokki julit yi euh, suñu paree julli dañu soxla mbokk yi ci jumaa ji lu tax ndax xam ngeen ne bayal bee gaa yi toog am na benn waaye goo xam ne ñaari at yii yëpp mu ngi ñu fi sonal ne daf ko bëgg a fàtt dafa bëgg a fàtt jumaa ji chaque jour mu indi suuf indi ciment mooy fii ñii toog nii ngeen di gis chaque jour am na ku fi jaabante bi ciment suuf saa ngi ne ak bé- béton bi ak ciment bi fu nekk an dem nañ fa ak moom pour mu bàyyi fii ngir yàlla nit ñi julli fi ngir yàlla nit ñi jaamu fi yàlla tey ngay gis ci Sénégal rek doomu aadama ñëw ba ci néegu yàlla di fa def ay caaxaanam tey rek nga koy gis doomu aadama da nga war a fekk fu ñuy jaamu yàlla nga fekk benn waaye ñëw na këram fii ci gunaas fii ci gunaas ci kanamu kanamu basin bi benn waaye ñëw na fekk këram benn góor samp fa sakket di julli mu ñëw ni lii lan la ñu ne ko paa bi dëkk fii de moo fi def lii di fi julli mu ne ana paa bi ñu ne ko paa bi de kër gële la dëkk mu ñëw daal di koy nuyu ne ko waa góor gi yow sa baraag bi nga samp ci sama terrain bi nag paa bi ne ko man de dama ko defoon jàkk nag dama yaakaar ne kenn moomu ko waa ji ne ko loo ko def mu ne ko jàkk mu ne ko jox naa la ko ngir yàlla nga def ko jàkk loolu la doomu aadama di def doomu aadama da ngay fekk man bana lillahi bayt bana allahu lahu baytan fil janna léegi nag comme yéeg nañoo wàcc ba sonn liñ ñu wax ñu def ko mooy na waa jumaa ji signé pétition boo xam ne dañ ko yóbbu ci préfet pour waa ji ñu mu bàyyi fii ngir yàlla loolu nag benn nit doyu ci yéen ñi toog fii ci jumaa jëpp di fi jullisee ku nekk soxna nañ sa tur ak sa numéro téléphone bind ko lënd yóbbul ko préfet xanaa bu ñuy wax benn nit ñu ne kii moo ko soxla benn nit la juróom-ñaar fukki nit taxaw nu ñuy def xanaa dinañ ko bàyyi ak ñoom kon nag loolu moo tax ñu ne leen bu ngeen jullee ba pare beneen bi mooy léegi léegi fii ci buntu jumaa ji dañ ma jox ordonnance boo xam ne un million la ak un million trois cent vingt mille xam ngeen kii lan mooy feebaram mooy fi muy demee àll ba moo yàqu léegi dañ ko ko defal mbuus fii ci mbagg yi mbokk yi xool leen kooku dundam nu mu nar a méttee te xam ngeen lu mu am 40 ans waa jaa ngi ni atam 40 ans la am xoolal fi muy demee àll ba moo yàqu mbuus lañ ko ko defal fii ci mbagg yi mbuus mu koy yenu di ànd ak moom ñu war ko opérer ordonnance baa ngi nii un million trois cent vingt mille mu ngi nii sama loxo moo ngi nii ku ci mun dara ngir yàlla suñu jullee ba pare ñaari mbir yi mooy suñu problème bu ñu paree soxla nañu seeni tur yéen ñëpp ak seeni sant ak seeni numéro téléphone pour lu ñuy joxi préfet beneen bi mooy ordonnance bi yaakaar nañu ci yàlla tàllal leen loxo yaakaar nañ ci yàlla tàllal leen loxo allahumma arina alxaqa xaqan warzuqna ittibaa wa arina albatila batilan warzuqna ijtinaba allahumma ya musabitu alqulub ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم فنسألك أن تردنا إلى دينك مردا جميلا اللهم يا هادي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والصهداء والصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين عباد الله يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله صووا واعتدلوا يرحمكم